الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين تالا ميلان تالا آه، توغل حقيقة أنت أبلغ من كل من تكلم هنا وأعبر بما في قلوبنا منك ما في من يوازيك في الكلام وهكذا نحن نتكلم عن رجل نعرفه جميعا رجل يقول للتاريخ امشي هكذا كما أريد رجل يكتب التاريخ ويخلق التاريخ ويوجه التاريخ حقيقة هناك رجال يوجههم التاريخ ولكن هذا الرجل يوجه التاريخ فكان من حسناته حقيقة أن انتشر الفيضة التجانية والتجانية والإسلام في بقاع لم تكن تعرف ما هو الإسلام وما هي الطريقة التجانية وما هي الفيضة التجانية بفضل هذا الرجل الذي يقول للتاريخ امشي هكذا كما أريد حصل هذا أه وحقق لا نملك أي كلام مثل تعالى لا نملك أي كلام نقول عن هذا الرجل فهو فوق كل ما نملكه من الكلمات وفوق كل ما نشعره من الاحترام والتقدير وفوق كل ما يخطر ببالنا لأنه رجل من صنع ربنا ومن عناية ربنا ومن حفظ ربنا هذا الرجل الذي يعرف كيف يتكلم هذا الرجل الذي يعد من الفقراء ولكنه أغنى الأغنياء إنفاقا في سبيل الله في كل مكان في كل مكان في السنغال تجد أن يدا منه كريمة امتدت إليهم يا إما عطاء يا إما توجيها يا إما تربية كل نمد من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ما كان عطاء ربك محظورا فهكذا من عطاء الله كان يعطي عباد الله ومن عطاء الله كان يو يمد أيدي العطاء إلى كل خلق الله لا فرق بين آه، أنت من من من قومي أو أو أو لست من قومي إنما أنت خلق من خلق الله تبارك وتعالى الذي أمرنا الله أن نكون معه كريما فكان كريما مع كل الناس كريما مع كل الخلق كريما في أخلاقه كريما في عطائه كريما في علمه كريما في مواصلاته مع خلق الله تبارك وتعالى حقيقة رجل خلق التاريخ ووجه التاريخ وأرشد التاريخ وترك قوما من بعده حقا سيعلمون هذا الدرس وسيواصلون أيضا في نفس المسلك في Euh, irshaadi taarixi kayfa yamshi euh, su fekkee dem na te bàyyiwul benn wasiya kon ñun ñëpp gis nañ ne doomam mu ngi Qahira mën naa nekk fi nekkoon ak yéen ànd ak yéen yal na ko yàlla defal mu mën a ànd ak yéen ni mu ne ni mu àndi woon ak yéen gannaaw loolu nag lu ngeen gis yéen ne noonu ngeen koy doxalee ñu ngi leen di xaar Medina bu ngeen ñëwee rek ñu ànd ceeg yéen waaye léegi balaa jotaay bi daje nañ wax ne. incha allah doomam boobu nekk xaaxira di jàng bu ñëwee moom lañ tegaale place am ba yéen ñëpp ngeen daje ñu seet naka dañuy continuer liggéey bi gannaaw ah euh, euh, bàyyil awal bàyyil awal la tudd defe naa moom la ñu wax euh, bon tey ci des yi métti ci ci fayda tijaan yi la bokk li anna xaadimul fayda mi ngi nii di tàggook nit ñi بس يجينا جفة شي علم شي متعلمين بس يجينا جفة شي يوم بس بيشي لباكو لأن الناشر العلمي ومن يدفع ماله لأجل نشر العلم من يتاقو مون نت كو خمنا مني جخني ني ريك فكنا جوتايم سن جوتاي ين جوتاي موي واخ موك اندلو مي دين ديفال نيت ني سي ات موم ني ñi may nañ leen di ñi may nañ leen di ñi may nañ leen di ba ci dàll ba ci kurus bàyyi na nit ñi nañ ko joxante di gën a màgg ci loolu yépp nag mooy kaana ala xuluqin azim xaqiqatan kaana ala xuluqin azim kaana rajulan fihi xayaa kama fi البنات الصغار فيه حياة وصف الرسول rasul الله عليه وسلم إنه كان حيا كالبكر فرجل كان فيه حياة حقيقة حياة مع كل خلق الله لولو موي الإنسان الكامل الإنسان كامل يستطيع أن يتعامل مع كل خلق الله ذكورا وإناثا أطفالا وكبارا آه، نساء ورجالا تجد فيهم يعمل فيهم كل نمد من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لم من اميون ايو كو مو نيبكومو فو بايكو سما يون نيكو سي يا كان سما يون نيكو سي ام يا سيدي ولا سيدي مني بون نيغي تاغوك نيت كو خامني نيت كو شير لا يونت نينا الناس معادين ها الناس معادين وأش وأشرف الناس معدنا هو هو هذا الإنسان نحن الدين أقفوا خمنا ومشي بهم رسلة وهم رسلة جفم رسلة دخم رسلة تموغنا سير أرس تموغنا سير أرس وبيتي هناك في نبتي كان كنا كسخول مولا يوري دارا إمي dëgg dëgg dëgg xam ne ni nga buggee urus moom nga buggee nit ki te moo gën a fort ndax urus dañ koy jaay kii moom dootu tàggoog yow mu ci saxul te foo jeex mukk donc ñu wax ñëpp ci moom wax nañ seen wax rafet na waaye wax ci kii laa gën a rafetlu parce que xalaas ma ma ma jeex na maa fii ah amatul amatul dara lu ñuy wax waaye nag euh, nit bi su nii. ak kenn ku nekk ak sa daraja ak ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy nangoo yal nañu yàlla may rek ñuy nangul yàlla rek ci lépp lu nekk ci lépp lum nekk ak ñun yal nañu yàlla may ñu nangu ko ki ñu tàggoog ñun tey cher na cher na lool ci nit ñëpp cher na ci jullit ñi cher na ci ñu dul jullit cher na ci gouvernement bi parce que gouvernement bi xam na gan góor mooy dem nii tey ah euh, na ci. ñi nga xam ne dëkk nañu ak ñoom ci euh, koñ bi ñu nekkal si gouvernement xam ne nit ku cher a ngi dem tey nit ku ko jar a ngi nii dem tey ñu jëflanteeg moom ci diine xam ne nit ku cher a ngi nii dem tey ñu jëflanteeg moom ci xam-xam xam ne nit ku cher a ngi nii dem tey ñu jëflanteeg moom ci àddina jëflante jëflante àddina xam ne nit ku cher a ngi nii tey yàlla bindut maqaamaay nit ñi emale ko ci seen xaj mu yi su fekkoon ci hajmu mu rek la yàlla di fay comme ni ko waxe bopam man mu gàtt mu ñaaw nii moko daan wax ci bopam waye yàlla mom xolut lool yàlla da fay xol daati sudur foofu lay jëfanteeg yow foofu la lay mayee foofu la lay yëkkatee foofu la lay yëkkatee ba nga xam mën ngaa wax tarikh ne ko xif taarix taxaw mën nga wax tarikh ne ko imshi tarikh dem lool yëpp ku ne xam na ne yéen ñëpp xam ngeen ni may wax bu baax a baax ndax xam ngeen ne def na ko donc bon yal nañu yàlla nangul ci suñ jotaay bi parce que wax na ne ci yonent tàmmiñu yonent am na ñoo xam ne boo leen di gunge seen bés bu mujj ci àddina sa bopp ngay jot ci safara sa bopp ngay jot ci safara sa bopp ngay musal ci safara donc bon yàlla may daraja boobu ñu nga ànd moom ci bésam sembi mujj ci àddina pour gunge ko yàlla na yóbbaale suñ yépp yoo xam ne métti nañu ci Sénégal yàlla na ko yàlla dindiwaale yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla na ko yàlla dindil korona bi gannaawam yàlla na ko yàlla dindil jafe-jafe yi ci Sénégal yépp yépp yàlla na ko yàlla dindi mu yóbbaale ñu ko parce que xam naa ne bu ko mënoon gis dina ko jël yóbbaale ndax àgg na foofu ci itte àgg na foofu ci do ci ci dogu foofu ci bëgg-bëgg àgg foofu itam ci bëgg nit ñi dëgg-dëgg nit ku cher koo xam ne loo bëgg a wax ci moom rek moom ëpp na loolu moom ëpp na loolu waaye yàlla mi ko mayoon jël na ko waaye mi ngi fi te am na leneen am na leneen am na leneen ah allahuma ajirna fi musibatina hadihi wa abdilna xayran wa abdilna xayran bañ ko waxee umu salamata mu ne ah yow ci ñëw nekk jëkkëram donc bon allahuma abdilna xayran ndax am nga lu nekk parce que nu middu min haulayi wa min haulayi min ataai rabbika wa ma kana ataau rabbika mahzuran ma kana ataau rabbika mahzuran yal na yàlla jëflanteeg ñun ci buntu boobu yal na yàlla xaree ko aljanna xanaa war war naa man tamit noppi naa salaam